xam ngeen fan yi weesu njiitu réew mi di le président Macky Sall dafa joxe tegtal gouvernement bi pour que ñu ubbi roppalaan yi nga xam ne ñooy war a naaw diggante région yi nekk ci réew mi ñu tudde ko vol intérieur diggante Ndakaaru ak Ziguinchor diggante Ndakaaru ak Cap Skirring Ndakaaru ak Tambacounda ak yeneen tey ma ñëw fii ci euh, Ziguinchor pour xoolal sama bopp

gis ne tegtal yi ñu joxe woon tabaar fakal la ñu ngi koy doxe tegtal yi nag ñaari pàcc la bi ci njëkk mooy fexe ba fii ñu tudde aérogare maanaam bërëb boo xam ne fa ngay dem pour jël roppalaan dafa am ay tegtal yu bees yu ñu fa joxe maanaam képp kuy tukki ci avion da nga war a gànnaayoo masque nga takk ko ba mu fës su boobaa doo lor sa bopp doo lor keneen koy dajal gis ngeen nit ne diggante passager yi kële jiitu ak koo jiitu war nga bàyyi lu mat benn mètre seen diggante loolu gis ngeen ne dañuy rëdd ci suuf pour koo xam ne soo taxawee fii ko nekk sa gannaaw am na nu muy taxawee fii nga xam ne aussi mooy dem ci enregistrement maanaam ña ngay dem ñu jox la sa billet ba ngay dugg ci roppalaan ba am na nu ñu gànnaayoo am na lu nekk seen diggante muy verre boo xam ne day euh, wàññi euh, wàllate feebar bi loolu mooy pàcc bu njëkk ñaareel bi mooy ci biir roppalaan yi boobu it gis ngeen ne ñoo ànd sànq jóge ndakaaru ñëw fii ci Ziguinchor gis ngeen ci biir roppalaan yi diggante passager yi dañ ko yokk ba kenn du mën a wàll kenn gis ngeen nit ñu nekk ci biir roppalaan yi ñu tuddee ko personnel navigant daa am solin bu ñu sol ak ay matériels yoo xam ne moo leen di aar aar aussi passager yi gis ngeen dem nañu sax ba nit ñu daan servir maanaam lu mel ni ay ñam ci biir avion changé nañ ko ba nekkin boo xam ne du mën a indi lorange donc yooyu yëpp nekkoon loo xam ne baaxoon na ñëw seet ko. fekk nga gànnaayoo tegtal yi nga xam ne jox nañ ko ndax mooy lay aar aar également ñi ngay dajal. pour vol internationaux yi maanaam vol yi nga xam ne diggante Sénégal ak yeneen réew yi la njiitu réew mi le président Macky Sall dina ci waxtaan ak waa Sénégal bés boo xam ne dina ko tànnal tànnal boppam. waaye li bëgg a xamal rek mooy ne ñun ci bi jël nañu sunu matuwaay pour bu ñu waxee ba sangam la ñun pare nañu pour que justement suñu avion yi mën a dem waaye aussi avion yeneen yi mën a ñëw ci biir Sénégal